xibaar yi mbokk yi bisimila li ci gën a fës taw bi li mu yàq bari na ci biir réew mii askan wi nag mooy wéy di sàkku rek kon dégâts yi joriñ ji nag Abdoul mbay aman si ab doxam nemekkoon ci banlieue bu Ndakaaru woto yi si nekk ab danger ci askan waa Ziguinchor yu bari kon amuñu visite technique màgget sufa si nag ne ñàkkum crédit bokk na ci li leen di gàllankoor politique ak li mu ëmb ci coow Babacar Gueye di dànkaafu ñi di xalab Macky Sall mu ne nag jiitu réew mi am na sañ-sañ tabb ku ko neex ci bopp kër boobule. xibaar yi mbokk yi bisimilah dalee nag jàmm mu di ma di la nuyu naan la bisimilah. ma fay sàmm di la dal yow kon ci kanam incha allah ci ëttu yéenekaay yi lay doon. waaw comme comme la ñuy def tey politique tawta société buñ ci noppee daaneel ko ak li nga xam ne moo di tàggat yaram. ci kanam kon incha allah aji moo diggay yi mbokk yi ci gàttal nag njiitu réew mi mooy ñibbisi tey ci ndakaaru ñu koy kon xarandi tey ji ci ngoon nag Macky Sall moo dakkal tukkeem ci wàllu liggéey ca Afrique du Sud nag mu war a ñëw nemmeeku si li xew kon fii ci biir réewam ginnaaw li fii yàqu ci wàllu taw yi fi daal di wàdd na kon ci xibaar yi bàyyi ko ci yéenekaay Le Soleil nañu nag. ay dogal yu am solo kon dañu fi xaar ne kon ci njiitu réew mi Macky Sall premier ministre Abdoul mbay mu ngi woon nag démb ci banlieue bu Ndakaaru moom nag mu yàgg fa rek ne meeku ji nag li fa yàqoon ci wàllu mbënn mi mu yëkkati fa nag kàddu fësal ay matuwaay ngir taxaw askan boobule kon ñu teewlu jëruñ Abdoul Mbaye ci micro Alioune Kébé. yaa ngi ci yoon ndax liggéey bi door na te am na ay béréb Ngor yu mel ni aéroport yu mel ni Grand Yoff fa la ñu ak sax Maguilène Senghor foofu itam jaar nañ fa ay bërëb yoo xam ne ndox mi génn na ndox mi dem na waaye mu ne ma man daal de toute façon mënatuma toog fii ma toog eh, amatuma nelaw maa ngi ñëw waaye bërëb yi ñu jaar yépp xam naa yéen gis ngeen gisal ngeen ko seen bopp am na lu bari loo xam ne bu amee ñun ñoo ko teg suñu bopp ma door ci CICES CICES gis ngeen ni fa ndox ma bare te tey sax wàññeeku na waaye li indi ndox CICES li indi ndox west Foire mooy yoonu ndox amoon na ba ñu di ko jaaral ci suufu VDN waaye fi muy fël foofu dañu sëkk terrain bi ba pare di ko jaay tabax fa loolu nit a ko def nit a ko teg boppam ñu jóge fa dem Maguilène Senghor foofu itam liñ fa gis gis nañ fa ne euh, am na kanaal buy génnee ndox waaye li fa nekk ci salte li fa nekk ci suuf dafa bari responsabilité yi nag ñaar la am na ki nga xam ne kii moo koy sëkk di ci duggal suuf ak i ak i ak i salte waaye itam euh, mairie yi war nañu jóg saa yu ñu amee canal bu nekk seen biir dëkk ñu mën euh, at bu nekk balaa taw bi di ñëw ñu mën a dindi suuf si dindi salte yi ba ndox bu ñëwee dara du ko du ko baare dara du ko taxawal ñu mujjee nag ci Grand Yoff ak ci zone de captage li indi loolu mooy ndoxu Grand Yoff bu ñu ko pompee fii lañ ko indi zone de captage mu jógee zone de captage dem géej foofu liñ fa gis mooy Euh, station pompage bi ci boppam ak euh, poste transformateur électrique bi fa nekk ndox daf leen di gaaw a dab bàyyi kon ci wàllu mbënd mi ginnaaw kon Ndakaaru ca Touba ñeent doomu aadama yi faatu ay dégâts yu takku nag loolu kon mooy bilan yi gàllu rek ci ndoxu taw bi ci gox bu sell ba nag xalif des mourides génne benn milliard ngi taxawu askan wa nag ministre Oumar Gueye yegg fa ngir kon saytu rek yooyu lee yàqu-yàqu ñu ay kàddoom ci micro Pape Serre Mbaye ci Touba bi ñuy ñëwee avant même ñuy egsi man ak ministre euh, des forces armées ak ministre des infrastructures bi ñuy ñëwee ci hélicoptère bi dañu wax hélicoptère bi bala moo dal nañu wëral Touba ci kaw bi mu ko defee xool nañu Touba yépp gis nañu euh, dégâts yi ni mu toll bi ñu ñëwee tamit fexe nañu ba euh, def le tour bi ñu defee le tour xayma ko gis nañ ni benn point moo am solo Touba bu ñu war a traiter rapidement point boobu mooy station Kër Ñang Kër Ñang nag ñaari yëf moo fa am mooy pompe yi dañu amoon problème ndax ndox mi dafa lakk. Euh, coffre yi leen doon commandé beneen bi mooy tuyau bi waroon génn yóbbu ndox mi ci Daaru Rahman dafa yàqu. bi loolu weesoo yokk nañu camion hydro camion pompeur yi ba nga xam ni tey ji juróom fukki camion dina daw ci biir Touba ak li ko wër yokk nañ tam pompe yi war a ñëw dina am pompe yu bari ñuy jox GNSP mu ñëw ci loolu loolu yaakaar nañ ni buñ ko booloo lépp. dispositif boobu dina mën a dékku neewuñu nag dina faj mbir mi ndax yàlla mën na taw lu ëpp li mu taw démb mais en tout cas dispositif boobu yaakaar naa ne bu ñu ko defee en place dina wàññi jafe-jafe yi am Touba. beneen bi aussi mooy ci wàllu service di jeune ministère de la santé dinañ ci liggéey bu baax action sociale it jokkoo nañu ak moom incha allah dinañu jàppale ñi nga xam ne ñoo ñaar euh, seen famille dañoo am ñu ci loru ak également ñu gën a néew doole ci Touba xalif bi dalal nañu d'abord porte parole am bi ñu dalalee ñu koy gërëm di ko sant di sañ Bass Abdou Khadre yëgal nañu décision yi xalif bi jël déjà première décision nee na lépp luy carburant ñu soxla ko ci lutte bi moom dina ko joxe ñaareel décision bi nee na dina jël lu toll ak un milliard déjà dégagé ko pour ñu toppatoo commencer toppatoo problème mu assainissement bu Touba. kooku nekkoon njëwriñ Omar Gueye ministre assainissement ginnaaw kon Touba xibaar yi ci diwaanu Saint-Louis foofu nag moom gox yu bari rek ca faubourg bu Sorna ñu nekk ci biir euh, ndox mi tam mu ñu fa nag njàqare ci askanu Jaminaar ginnaaw raay Eau Claire Médina Daaru Cité ñaax ak yu ni mel Moussa Diagne Abdou ya même bu fekkee ni kenn mënu ko méngale ak dakaar ci wàlluk ndox mi ndar nag gis na ni askan wi am na ci yenn quartier yoo xam ni yu demee nag Cité Ñax Médina Course Médina Daaru Gannaaw Raay Jaminaar ak Eau Claire am na ci ñenn ñoo xam ni ñoom ñi ngi ci biir ndox mi ba léegi. waaw ah, ba ñu fanaan. gannaaw ba ñu nemmeekoo sax mi ci wàllu taw mi gis nañ ni bëriwul loola gum ci fi nga xamee ni moom moo di ci Ndar gis nañ ni askan wi ñu ci bëri sax ñoom nee na ñu ngi jànkonteel ci jamono ji ay jafe-jafe yu tar ci wàllu ndox mi nga xamee ni moo leen gane si. sama borom kër gi gaañu na bu yàgg borom kër gi bi yàlla àttee ki nga xam ne moo fee taaw am na lu mu mébatoon yàlla eggalewu ko ma delluwaat ci ndox mi ren xëy na su ko yàlla yeggale woon du mel nii waaye nag yàlla eggalewu ko baay mu delluwaat ren melaat nii waaw ci la melaat nii na wàññiku woon na taw bu mujj bi nu waale koo fii ba lii fees néew génn bakkan bi dee tax camion ngu suuf la ma toppatoo ñu sotti ko fii. ren nag sama waa ma bum ni ma doo dëkk ci ndox mi foog nga génn bala tabax bii daanu ci sa kaw léegi nag bi ma génnee amu fu ma jëm dama luyee ji. bi ma looyee it aw ma lu ma fayee aw ma lu ma fayee suma jëkkër ju may fayal sama njaboot dañoo néew doole amuñu ku amuñu xaalis pour fayal ma sonn naa nag. ñeneen tamit ci askan wi wax ni yenn service yi nga xamee ni ñoo nekk fii yore wàlluk ndox mi ak naka la ñuy fexe ba yàlle ko ñoom nag war na nañu jël seen ay matuwaay laataa taw bu metti bi di ñëw. bu xoolee Médina Marmiyal Daaru Jàmminaar ba jàmm gën quartier yooyu assainissement ba na mu waroon demee demeewu ko. donc moo tax ñu ragal ni bu fekkee mairie bi jëlul matuwaay yu war ba xam ni ci biir quartier yi ñu mettre à la disposition de ces populations ay moto pomp am naa njàqare ne bu tawee nit ñi daanu inondé te daanu génn seen kër yi même bu fekkee ni waa ONAS am na liggéey boo xam ni def nañ ko ngir électrifier station pompage bu jàmm gën bu jàmminaar ak bu jëw li nga askan wi ñoom ñi ngi wéy di tàllal seen loxo ak di ñaan nguur gi ci yenn gox yi nga xamee ni gis na ni foofu plan d'assainissement amu fa ñu fexe ba def ko fa ngir rek mën leen a jàppale ci ndoxum taw mii nga xamee ni fu mu nekk nii jaaxal na leen jaajëf Moussa Diagne ginnaaw Saint-Louis ca Kolda dem ca département bu Médina nag moo ëpp nag ab problème rek tali bi dem Pata la taw bi daal di rek ne ñu yàqati fa dem bi nag ak dëkk bi si moo bari coono faw sax nga fay na ne ñu rek lu bari pour nga mën nag daal di am lu fa daal di mën a yóbbu nag lu bëri kon ci wàllu dund gi ak wallu mbéy mi daal di am gàllankoor Kolda Bokar Kandé. oto yuy jóge Kolda jëm Pata wala jóge Pata di ñëw Kolda. dañu obligé di jaar ci déviation diggante Saare Sada ak Tunkoya fii nii nag yoon wi dafa dagg gannaaw taw bu bari bi fi am temps weesu mu doon nag gàllankoor ci askan wi yeewoo ca département bu Médina Yoro Foulah. dund bi nga xam ne état bi sedd na leen ko mu ngi fi jalee Kolda manta dem ngir yoon bii dagg engrais bi nga xam ne moom lañu ñu waroon na def ci tool yi engrais boobu mu ngi fii. tedde Kolda te engrais bi manta dem pour yoon amut fu ñu ko mën a jaarale fekkente ne da nga fi jël Jakarta war a dem Ndorna wala nga war a dem Soɓolde huit mille francs ngay fay Jakarta saaku ceeb boo ko fay yóbbu da koy fayal mille francs boole ko ak huit mille francs bi boo demee ceeb boobu nga bugg a ko jaay noo koy jaayee ba mën a am dara ñi dëkk ca Saare Sada Tunkoy ak yeneen dëkk yu jege yi ñoo ñëw farlu di fa defar pont mu nekk nag lu ëpp téeméeri nit bokk ci ay exploitants ci yu leen di jàppale ci seeni man-man ñu jàpp ne garabu xay dina tax rek ba bi gën a dëgër moo waral nag ñu koy gor waaye ci autorisation wu service des eaux et forêts autorisation boobu nekk kii jiite kuréel bi ëmb transporteur ak chauffeur yu Casamance la ko accordé di ki nga xam ne nag moo appuyé liggéey bi ci li war a toll ci ñaari millions ci suñu xaalis. en tant que sénégalais foo xam ne fii dem nañ fa rek ñu def fa li nga xam ne euh, li président war fa war a def ñun mënuñu def li président di def waaye nag ñun it la man dañu ko ciy jéem. lenn du taw mbaa méttitu liggéey bi mooy xaddiloo askan wi defar yàq-yàq yi ndaxte yoon bi bokk na ci ñaar yu ñuy gën a jëfandikoo ci département bu Médina Yoro Foulah indépendance ba léegi nag ci jafe-jafe yi la ñu nekkee ba tax na nag askan wi jogaat tey jii woo nguur gi ñu bàyyi leen xel. bàyyi leen xel jaajëf Bokar Kandi fii nag ci banlieue bu Ndakaaru ñu bari kon ci ay rek njaboot nag ñoo loru kon ci mbënn mi seen ay kër nag ñoo fees del ak ndox coono àdduna daal di leen di dikkal Badara Diop Libaas lay ndiira kan bi benn la fépp ci banlieue bi yoon yu fa ëpp nag daanaka jaar fa jéggi siraat lañ koy mën a méngale fii ci route de daanaka ndaamar yi dañuy faral di wiiri dugg ci biir koñ yi ngir mën a am yoon bu ñu aw Médina gunaas daanaka fii la yëf yi gën a jege dayoo li ëpp nag ci ay njaboot dañoo wuti yeneen i dëkkuwaay li ko waral moo di ndoxu taw bi dafa nangu seenu kër. ñi fi nekkoon ñëpp kenn ku ci nekk leen li fi jëlee muy ndox mi ah dug ñàkk a bëgg fii du waaye nag ñàkk fee mën a nekk dong moo la fi jëlee. fii ñi bàyyi seen kër dem. ñii dañ ñii ñenn ñi dañ leen jël yóbbu leen jaxaay te gënalu leen ñenn ñi tamit ñi ngi fi bëgg a defar seen kër dëkk fi te amuñu moyen duñ ko defaree képp koo gis këru abandonné nekk fii rek dem jaxaay gënal ko ndax bu ko dem jaxaay gënaloon kon day dem déclaré comme ni seen i moroom ñu dem jaxaay mais bëgguñu jaxaay ñun gunaas fii la ñu bëgg jamono ji nag tembe amul genn kilifa gu fa ñëw ngir xool askanu Medina Gunaas nañu toogee foofe li ni mel tax ñoom ñu yaakaar ne nguur gi daf leen a bàyyiwul xel. ñi ci des ñu ngi fi nekk ah di xaar yàlla ak yonent ba itam ak ndimbalu suñu borom. ak ndimbalu ji kenn képp koo xam ne kii yàlla teg na la ci bopp réew. fii yéen bu ngeen xoolee xam ngeen ne fii tey ji lu ko defar lu yomb la ñun nguur gi ci boppam moo ñu seetaan ci man ci ni ma ko mën a waxee moom moo ñu seetaan ndax bu fekkee ne defaloon nañ ñu ay canal comme ni ñuy defaree feneen fi canal kon dañu dëkk comme ñu ñoo ñu dëkkee seetaan ñu moo tax lii am ba pare nag boo gisee tam mel ni ñun suñu góor ñi nga xamante ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo toogul benn yoon tooguñu guddi tooguñu bëccëg guddeeg bëccëg ni ndimbal ma nga fa rek seen tànk yi jógewuñ fa benn yoon comme ni ngeen ko gisee ci image yi njaboot ju bëri yi ne woon kër yi daal dinañ fiy jóg dem dëkki feneen li ko waral moo di ndoxu taw bi nga xamante ni daanaka dafa nangu seenu dëkkuwaay ñoom ñu ci ëpp nag ci njaboot yi teg nañ leen ci ay sites yu bëri yi nga xamante ni mu ngi si banlieue bi laata gouvernement bi di indi ay solution yoo xamante ni dina leen gindi si li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe gi ñu nekk ak li nga xamante ni moo di déclancement plan Orsec bi. plan Orsec Badara Diop kon ca banlieue bu Ndakaaru ca école Assec naa nag ca Géejawaay ay njaboot ñoo fa tox seen i kër nag la ndox mi kon daal di rek nañu nangu mu di kon ab ndimbalu euh, mairie ba ñi fa nag loolu kon ci mbënd bi def lu kon taxawaay boobule ndimbal non fii ci gi jëwaay ay njaboot ñoo daw làqu si fii ginnaaw ndox mi nangu seeni kër classe yi lañuy soppi ay néeg togg fóot ay jéego bés bu nekk wante fii sori lool seeni ay kër. suñu kër moo fees ndox de waaw lu moo léegi depuis taw bi commencé daal kër bi daf fees ndox néeg yi di ball ñuy ŋàcc rek nag di ŋàcc rek ba démb nag taw démb bi nag taw démb bi ñëwee nag eh, mu daal di fees dell. mënatuñ faa tëdd matelas yeeg yëpp mu tomb ci biir ndox mi ak gis nga suñu yére yëpp a tooy njabootu Tamboura comme yeneen ñoo fi teew mépp fukki njabootu tey bokk juróom benn salle de classe anam yi nekkin yi xaw a jafe lool tax ndimbal bu nekk dañ koy rafetlu yal na la yàlla taxaw taxaw yal na la ko yàlla taxaw yàlla ngay def yal ñëw fekk fi nit ñi gis ñu sonn ñu ne donc fii lañ war a def ndimbal bi ñuy woo ñooñu tamit pour ñu jóg pour ñëw dem sur le terrain pour indi ndimbal bi sur le terrain parce que population bi sonn nañ nit ñi soxla nañ ko te ñuy wax état lépp lu mu doon def benn na fexe mu def fukk. école bi pare ren moo war a ubbi ci weeru octobre fi mu nekk nag amul toilette lu nu mel tax ñi fi yegg si amal jéego ndimbal ne dañu si taxaw ngir mën ko daal di saafara. école baa ngi nii amul courant amul ay suturlukaay euh, yooyu bari na. donc dañuy wax aussi état bi ñu xam ne kat ñiit ñi nekk bu ñu leen jëlee ci ndox mi du ne rek xusatuñ ci ndox waaye am na leneen le minimum bi ñu war a mën a am donc dañuy interpellé ñu dimbali leen ci ay toilettes. ginnaaw géejuwaay ca West Foire foofu nag ay dégâts moo fa am it kër yu bëri kon ñoo géejëf rek yoon yi nag xaw a bëri ay pax nañu kon lu mel nag indi fa rek ay gàllankoor ci askan bi fay daal di yeewoo xadis yi Mouhamed Ba. to ndox mi tëye ñu ciy jéem pexe West Foire di wéy di ànd ak coono fi nag kër yu bëri dañoo wóoratul noonu ndox mi nag moo génne fondament yi. loolu teewul dem ak dikku askan wi waa mairie ndakaaru xëy ñëw di joxe ay permis ngir toxal ña fa dëkkee waaye it ngir waxtaan ak askan wi. wóorul moom pour ñu fi dëkk mu loola tax sax équipe bu mairie bi ñoom ñëpp ñëw taxaw pour ñu def arrêté d' évacuation yi ñoo ngi koy defar pour maire signé ko préfet approuvé ko pour ñu évacuer kër yi nga xam ni moom la nit ñi nekk. parce que kër yoo loo xam ni ndox mi dem na ba génne fondation yi da ay R plus 3 la ak R plus ñu nit ñi di fay dëkk. ñoo ngi leen évacuer moo tax équipe bu euh, volontaires yeeg yëpp ñu nekk si nekk si place pour aider ñu ñi dundee évacuer euh, les bâtiments. waaw duñ ko évacuer ba pare nag dina am étude boo xam ñu diagnostiquer l' ensemble des immeubles qui sont affectés immeubles yu ñu affecté yu affecté yëpp dañ koy diagnostiquer xool solution idoine bi solution bi nag moom mën na nekk toj parce que am na yoo xam ni gis nañ seen i fondation génn ba pare mooy reposer bu si dara. donc euh, yooyu moom démolition moo ci kii mais lépp euh, expertise bi moo koy wane. foo tourné nag gis lu yéem ay gët ñi fay yeewoo nag di ñaan nguur gi mu jàpp ci. jóg rek taxaw ci wax bi doy na xool nañu gis nañu léegi daal nañu jëf jëf bi rek moo ci des. bu xamante ne bi nawet bi jàll na ñu xam ne nawet bi déwén day ñëwaat te yàlla mën leen di waat taw bu ni mel ñu prévoir loolu ci diggante boobu un an nous avons largement le temps pour préparer euh, seet lu ñu si mën a def daal état bi daal ñëw jàpp si. ñu ngi dugg ko génn di jàppale nit ñi euh, fexe ba nit ñi sori seen bagage yi mbedd yi yëpp ndox maa ngi si biir ndox maa ngi si biir kër yi aussi donc comme nee nañu plan ORSEC dañ ko déclenché ñuy demandé nañ ñëw fii évaluer suñu dégâts yi jëm ñu si jàppale. ay kër yu amatul kaaraange tali yu yàqu taw bi indi nag beneen tiitaange moo di kër yu bari mën naa màbb ñuy ñaan nag nguur gi mu gaaw cee jóg bala jee di am. jaajëf soxna Khadija beneen ponk ci biir euh, xibaar yi nag ca Ziguinchor seen parc automobile moo màgget nag ay woto yu bari ko nañu nag amuñu visite technique mu di ay rëq-rëq yu fes kon ci kaw euh, tali bi nag mu di ab danger ci kaw euh, ci biir rek kon clients yi nag donte sax chauffeur si nee ñu amuñu moyen ngir saafara lu ni mel ca Ziguinchor Cheikh Tidiane Cissé Kaba Cissé sécurité transport moom am na tolof tolof lool ci diwaanu Ziguinchor dara waralu ko lu dul ay woto yu màgget yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ñi koy jox askan wi ñu koy jëfandikoo. waaw paan yu bëri rek su yoon yi baaxut. waaw da ngay dugg gën maay daw fii ba Adiane ñoom Añaak mais sonn nañ trop ak Kamarkunda. suma woto bi ah bi de fu mu toll nii fu mu toll fu mu toll nar na fi am 15 ans de. oto yu màgget yi ñu ngi fiy daw lu waral loolu néew di doole yi ñoo ci gën a bëri. bon interdiction moins de cinq ans yi ñu wax nii gën gën nañu pénaliser quoi parce que nee ne oto mënoo ko jënde à plus de trois millions ba pare nga bugg ci liggéey fii Ziguinchor nga ba nga génnee loolu som boobu ci diggante boo xam ne mënul nekk quoi. bu dul atu oto yi nga xam ne gis nañ ko te mu avancé lool ñenn ci chauffeur ñoom nee nañu rek seen oto musul dem visite technique ñenn ñi jàpp ne rek ñoom dinañ dem visite technique waaye ni ñu fay demee dara laaj. visite technique boobu noonu ngay wax am ko mën. waaye am na ñu ko mënul am am na ñu koy dagga chaque année am na ñu ko dul dagga waaw dañuy passé visite technique parce que visite technique Sénégal moom mun nga bañ a présenter oto bi sax quoi da ngay dem fay l'essence 7000 la ñuy laaj na nga fay 7000 yi rek di nga am visite technique. presque gëj naa ko def tuuti ah. waaw parce que yoon yi ñoo ko war a xaalis amut. lii moom wóor na. Hmm? wóorut kañ wóorut ñàkk pexe njaboot bu bari. ah. nii fu mu toll nii non frein benn côté lay jàpp. ah frein benn côté lay jàpp ah ah risque la moom. foog ma dem benn voyage ñëw dem dem defaraat ko parce que instant même benn dërëm yoru ma ko. ana kon lan la chauffeur si xalaat ci lépp lu jëm ci wàllu soppi li nga xam ne moom mooy oto yi nga xam ñoo ngi daw ci diwaanu Ziguinchor. état bi bu ñu mënoon dimbale ci ay oto yoo xam ne du dépassé 3 millions. bu ñu ko amoon ñu jël quoi. ay yoon yu baax oto yu wér rawatina ay visite technique yu dëggu mooy li nga xam ne jàpp nañu bu fekkee am na dina bokk ci liy indi sécurité routière ci diwaanu bët Saloum réew mi. Cheikh Tidiane Cissé si si nag nañu ñàkkum crédit koppar kon moo waral rek lu ni mel mu bokk ci nag nañu dogal bii rek ay ñu importé woto yu ëpp juróomi at kon fii ci biir réewum Sénégal Papa na moo njiital regroupement chauffeur car urbain foofu kon ci diwaanu Ziguinchor ci micro Cheikh Cissé. visite wu c'est pas normal que oto bi du présenté lu waa Sénégal moo nekk oto bi dafa war a bu nekkee sa oto bi nekkul à règle ñu bind nga dem faju comme nit boo demee timbre 2000 francs nga war a jënd boo ko dem jënd trésor ñëw andi sa fiche technique oto bi présenté wu service des mines ñu xoolal la lépp lu nga xam ne lu demee côté frein yi signal yi ak lépp quoi klaxon mais ça même extincteur dañu ko dañu koy bu nekkee vraiment am nga ordonnance boo xam ne dañ la koy defaral da nga dem réparer loolu yëpp nga dellu si ñëw contrôler encore ñu doog laa dox sa visite technique boog di nga am oto boo xam ne doo ko ñemee yóbbu service des mines tali bi bokk ñuy see policier ñu xool parce que vraiment li ñuy gaare soit que nëbatu xool fu ñuy jaar duñ tëj dajeeg policier day am waaw oto yi ba ñu ngi fi ah, âge bi mi ngi ci mais dañuy daw sans visite yooyu itam am na képp kuy transporteur fii urbain xam nga ni sa oto jël na âge peut-être que lu ñuy liggéey après bu ñu jëlee si banque yi defar suñu oto yi boog lu ñuy jël itam dañuy dem fay banque yi boog booy paree fay banque yi day fekk oto bi jël na âge il faut nga jëlaat encore beneen bor encore déwén xam na carrément sa versement noo koy gérer chauffeur bi xam na heure bi ngay daw heure bi nga war a taxaw ba jusqu'à présent commission boobu lañ nekk di xaar parce que nous on est prêt bu ñu bees yooyu comme Dakar nu mu comme Touba nu mel lu baax la et puis day permettre tam ñu ubbi yenn axe kooku ne woon Papa Soukouna njiital regroupement chauffeur car urbain ca diwaanu Ziguinchor xibaar cib gàttal mbokk yi ñu di nag liggéey kon ca l'hôpital régional bu diwaanu Saint-Louis ñoo am euh, dëgg nag ginnaaw ab audition juróom ci ñoom nag responsable waa SUTSAS ca tribunal nag ñu am liberté provisoire ba fukki fan ak ñett di seen ba supp procès bi xibaar ci wàllu politique coalition Macky 2012 ñoo ànd ak xalaatu professeur Arouna na Diouf nag bu APR yaakaar ñu gis ne nag ne ñu Macky Sall donc moo am sañ-sañ tab njiital Sénat def fa kon ko daal di neex ki yor seen kàddu di kon kon kër Gueye mu àddu ci micro Gustave Emmanuel Faye. bari ñu jóg di xataraayu naan nañu dindi Sénat bi ma jàpp ni ñu ci bari ñuy wax sax dañoo xamul li xew. ay nit ñu làqatu ci ginnaaw ñoo leen di waxloo ndax dama jàpp ni sénégalais bu xam ay valeur u Sénégal nga xam ni danaan ki ñëpp àndal na doxal yow bu nit nee man lii laa gëm damaa gëm ni Sénat baax na damaa gëm ni Sénat mën na jariñ senegal sénégalais yi ànd ak yow ci loolu nit ñoo ngi ànd ak yow ci Sénat jëriñ senegal ndax mu neex mu naqari Sénat mooy lan Sénat mooy maire ya nga xam ni dañ leen a fal seen gox ñooñu ñu fal seen gox ñu andiwaat leen nga xam ne dañuy xam seen problème mu gox ñu war ko andi ci deuxième chambre nga xam ne tey bu ñu fa andee li nga xam ne nar naa gaañ gox yi ñu dindi ko ak ñi nga xam ni président da leen di tànn ñu xarañ loolu ci seen i domaine am compétence yi war nga xam ni bu ëllëgee compétence yooyu dañ koy indil réew mi ba bu ñu indee loi bu nar a yàqu ñu ne déet lii kat baaxul bu ñu naree def lu nar a yàqu ñu ne président lii kat baaxul man dama jàkkaan loolu baax na cim réew. question de compétence la question de am xam nu àdduna bi di doxee ak nan la mën a doxee question de bëgg la aussi kii dañu man bëgg naa bu ngeen ma joxee ma doxal normalement ñeneen ñi ñoom nee nañu ñoom ku leen jox ñu jël mais bon bu ñu leen joxul il s'en fout kii ni moom bëgg naa bu ngeen ma joxee ma doxal man yaakaar naa ni kii ne bëgg naa te bu ëllëgee ñu mën kaa duma ci parce que dañu bëggoon naa te doxalul yaakaar naa ne laa jox ndax kooku dafa engagé sa responsabilité